waxee wa salaatu yema ko daaw maa seen ñaari pas-pas ñoom ñaar maanaam bokkaale bi ak méngale bi nga jëndee salaatu waaj di ko féetale waat waaji mu koy fay la fekk nga la nga ko jënde nga joxe ko ko ko bu ngeen di bokkaale it la la nga jënde bu ngeen di bokkaale njëg loola lay fay genn wàll masalan boo ko nee bañ jëp tedd jënd naa ko ci ñeenti junni la la jox ñaari junni teg buñu ko teg def fii ma teg pour que tugg ak taw nit wa ilaa ndeem ñaari pas-pas yomoowul da ngaa jënd ba pare ne ko noon bokkaale te yokk njëg te bay il na leen jaay la te xëy yi ne ko yeneen jaay yi sartu ñu daan tàbbi ci njaay yëpp da koy tàbbi ma ne ko dama ne war rot na al musrif ku ñu bokkaale al mooy ni ko di ku ñu ràññee taam ñam da nga de surtout woo xam ne nga ko wasa dafa ko mu dëggal tey boo nattee ñam yi ba noppi yéen a ko bokk mu dëggale ñu ne wax ne dëgg mat na moo war léegi li ci sànkoo ci mooy ñaar yéen ñaar wala wala affaire koo jëm bokkaale na ko su ma la yéenee ko alami si kinisi seen at la xam ne boyal na de su fekkee tey da ngaa jënd ñam bi waaji ne la nan ko bokkaale saako bi su boobaa saako sedd bi ngeen ko bokkaale bu yonee foofu kinisi lañ koy jël wax boobu la wala wala saala neem laaj na saalisul aji ñetteel sarikatu ma bokkaale seen ñoom ñaar keneen ñëw ne damaa bëgg ñu bokk ko ñun ñett te loolu ñoo ko tudd si kenn ku nekk jël fanweeri kilo ñett ak dara wayen wala it leen méngale nga maa la xam ne istarayta jënd nga bi maa ci sëñ bi nga xam ne istarayta jënd nga ko jaa sama dagal waaye inam tul suñ jëm wara noo ko da ngaa jënd si laa ca dëkk bi benn waaye ñu la soxla naa ko nga ne ko mën naa la koo méngale nga fay ko kan na ma ko ndëg dama ko jënd ah dagal na waaye su demee nag bu ko bu ko neexee mu jël bu ko neexee mu bàyyi loolu mooy inam tul suñu waaye bu ko ne fàkk nga jël ko de wala hoo da nga naan ñeel na ko alxiyaaru tànn bu ko neexee su demee nga ne wa in rabbi ndeen nangoon bi ànd woo ci naka moom lu ñuy méngale ne abdul jàmm tey da nga ko ne la ma jëndoon te dëkk rek ab jàmm su ma alima topp mu xam di sama njëg fa sharia mu sib ko ni man loolu mënuma ko fasaali ko loolu googale delloo loxoo ñëw nga ne war aj na ko yo gën a tax ci njaay yi sartum wan sarax ndax saraf moom mayewuñ ci dara bu fekkee da nga may wecc wurus sa xaalis sama wurus day teew sa xaalis teew waaye mayewuñ ci ma dem ci neeg bak ma di su may xaal saami topp xàccee ñam xàccee ñam mooy ñam li nga jëndoon dëkk ñëpp jégale nañ ca dem ba ci sam nekk ak lu demee noonu da nga ne su ma tawli i topp méngale moo ci topp maanaam nga jëndoon aw ñam jox ko ni fii ci ñam wata ri katul ak bokkaal fii ci ñam moom itam jéggale nañ ko yeexee njëgg dégg nga de luy toll ci jegeñ genn wàllu bi boo ma bu ma la méngalee ñam wala ñu bokk ko man ngaa yeexee njëgg fekk ci baax jëm topp sam su may xaal udo topp xàccee marchandise ci topp maanaam nga jëndoon marchandise yi ki nga ko jëndoon jëndaat ko ci yow kooku moom itam jégal nañ ci ab biir wa fas ko dee ak siri bor si dee nañ ci bor waaye amee noonu la sila wala siis wala bëccëg firee ko da leneen lu bokkul ak loola jégale nañ ci moom itam jéerub lu mu mën a jëlee lam ko firee di ko jox su ma bay udayin topp jaay bor su ma itti daawoo topp tàmbali bor si bor kooku itti daawu bi day ni mooy rastumaalu salam la jégal bu mu ëpp yeex nga bu mu ëpp ñetti fan ndax boobu yëpp faslun jaasa dagan na muraba ci njaayam murabaha waaye bu la ko soreel xiraa ko mooy lu wutee ngam njaay muraba nag dagan na wala alaamu xaw min donte njëgalu ñu xayma la woon ni ki dangaa jënde woon ak kër nga jënde ko aw nag nag wa di jar ñeent fukki junni wala juróom benn fukki junni nga jënde ko kër dagan na nga jaay kër ga njaay njaay muraba mu ne waa jaamu yàlla barabu dagan njaay muraba xanaa mut la xam moo xam la ñuy xayma bu waa ji jëndaat kër gi ci yow dayor nag mu mel ne bu nga jënde woon kër gi aw wala moom kay dañuy dagan xanaa indi kaan nekk indi mustari fas mustari waaye bu fekkee njëgg nekkul fa mustari du dagan tawi laa ñu am ñaar jëntal ñu ne njaay ñeenti façon la dafa am njaayu musaawam waxaale moo gën a bari ci njaay muy benn ak njaayum muraba muy ñaar ak njaayum musaayam da ci njaayum miraas muy ñett ak njaayum istisaal njaayum istisaal mooy njaay yi nga xam ne dañuy bind préfixe takk nga xam ne moo ne ci maanaam tuwaar yu ñaare lu ëpp ñoom noonu la ñuy doxale ñeenti xeeti njaay yooyu ñoo nga ne nag usu ba da nga taw daan am na ñaar jantal mu ne ma usu ba li mépp la rek commencé na lépp ko xam ne loo ñëw nag ay nu jëmm xaayimatu la ji taxaw soo jaay classe njaay muraaba ak lépp lu am jëmm ju taxaw da nga ko limaale te sëpp seen naka suuf boo jëndee malaan ni suuf dañ koy limaale fekkata la wa tax seen ak njam maanaam mooy daani la def na ko limaale fekkata la wa xasrin ak liñ naan fóot wa xiyaatun ak ñaw wa fatlin ak tàpp wa kam wa fatlin ak baram dégg nga wa kamadin ak tàpp yooyu xeet la mu doon def malaan def na ko limaale wa tasritin ak faatu def na ko limaale wa waaslement ak cosaanal lépp loo xam ne saada doon ko ne moom itam def na ko limaale di saman ci njëgg ka amoon ci ñetti sëf maanaam ba nga ko jëlee Ndakaaru la nga ko fay ba mu ñëw def na ko limaale wa sajjin ak takk wa tayin ak taxañ aussi daa goo xam ne baaxof na ujur ciment seen yooyu ñoom ñaar ka doon takk ak taxañ dégg nga de yool booba da nga ko limaale dégg nga de bu ko defee nee na wa ilaa ndeem nga xam ne nag baaxowuñ ko fa ca kanam la nekk ci biir ko limaale dafa xam nee na wa kiraay baytin ak sant néeg bi si la ci ñëw si la maanaam ba nga ko jëndee néeg ba nga ko tegoon bu fekkee dañ koy fay lu yàgg da nga ko limaale wa ilaa ndeem baaxowuñ ko fa da nekk ci biir ko limaale te ci misaal nekk nag lango maanaam nag lango mooy facteur ba la doon yóbbu fa nga koy jëndee su fekkee moo ne kenn du ko limaale kooku si lam yëpp lañ ko tas biir lam yëpp joo xam ne baaxowuñ ko si réew ma ah kon nga dégg ne buñ ko baaxoo amaana la nga ko fay da nga ko limaale kon bay na leen bi ne nag moom jaayu muraabaxa ba nga déggee dagal na ak jëmi xam lépp maanaam yow mi jaay jaay muraabaxa da ngay biral mbooleem loo def ci silaasi te doo ci nëbb dara aw fasara wala mu firi mën a ko coono ba fa xaaral mu yemoon bi place bi nekk ci téeméer la ma dikk ak lu waaj cosaan li cosaan nangam la maanaam daal maa ngi ko jëndee woon juróom-ñett fukk bu la neexee waxam lu aayonu bi cosaan nangam bi di ñaar loolu nga daal di koy teg coono aw ala murabaati bi wala dinaa ko jaay ci jaay murabaat wa bayee na mu biral tamit asal nekk solo fukk bu ne mu asal ahadaatal fukk ak benn nga ne fukk bu ne maa ngi ci bëgg 10 pour cent fukk benn fukki fukki yu nekk nga tegal ma ci benn loolu dëgg dagan na kon la muy fas yéene di fasale maa loo xam ne loolu ñoo la ko rek solo du du du du du ci fasalante lu am solo day wax rek fukk bu ne fukk benn nga cere doole nga boobaa fukk ëpp fukk cosaan ba fukk njëg gëm ko jëlee rek da nga di ak lu am jëmm ni ki yee ma waxoon te kaw daf yeneen limaale waaye ci def nag kenn du ko limaale nga ne wal ba jël ci pilga kasaalika naka noonu dégg nga de di kasaalika naka noonu la moom itam lañ la ci piloon dañ la ko jaayee dégg nga loola it da nga ko compté waale waaye laa xamoo fu ma lëm lëm nag nga xamat ni ki taxaw na alay ci man bi kasaa ci nangam day def da nga nu njaay murabaha ci lu du wér ci lëm maanaam ci laa ci taxaw na ci man ci nangam rek wala ñu fasil te fasalewul ci kanam tuuti dafa xamal kooku boobu baa dagal na aw xamat wala taxaw na bi tëddaa ci tekk bi wa tey yaa ci taxaw bi tëddaa ci nangam wala muy fasil te fasalewul dagal na mu ne waa jàmm yàlla foo moom loolu nag te mooy lëm googu ndax bu tàggee wàcc te ci bun ay kan lañ koy compte te kan moom bu ñu ko suppilé yëpp war na ci la war na nga jëm aw xis wala njar la te njar moom bu ñu ko suppi woon bu la neexee nga baax taabi laa ni am na ñaar jëm te atteem dina ñëw ci kanam tuuti ci kan ak mu ne ma wajaba war na njaayu muraaba ak tabir ma dina lépp loo xam ne ci trop ci def la lépp de maanaam ci xilaat lépp loo xam ne boo ko tuddee ci koy jënd dina ko tuddee na nga ko biral rek ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni da nga di al bayi aani isaa bayanaa bu ñu biralee barika lahuma nee na bu ñu biralee ñoom ñaar yàlla barkeel seen jëf waaye bu ñu nëbbee fen yàlla wàññi seen barkeel jaay loolu xadis ñu koy ci def nag xanaa naka doo naka la ko teewale wa ak naka la ko teewale na ko biral wa ak doo ak naka la ko fas loolu la kan moo xam dafa fas ci wurus fekkee ci xaalis wala dafa fas ci xaalis fekkee ci wurus fas ci wurus mooy ay dinaar la waxaale woon ba muy fay muy xaalis wala mu ko xaale woon xaalis ba muy fay mu joxee dinaar wala ajali ak dikk la ko biral su fekkee da nga koo jëndoon ceeb lekk kon nag ba war na nga biral ni dama koo leboon ba ma koy jënd ñun bi andeen jaayaat nga ko ala naka di ci teew yam yow ki ngay jaay jaay muraba da ngaa bëgg mu teew waaye yow da ngaa leboon na nga ko biral ba tool yi samaani yàggug jamono ji ci loxoom na ko biral ba te jaawu saa yi tam jégal biram yi sectoore bañ la ko jaayee lañ la ci jégal na nga ko ko wax mooy bëtin ak may uti boo xam ne baaxof na ko maanaam na ko biral bu fekkee dañuy def njëg gi dañ la cay may dara yow boo koy jaay jaay muraba na nga ko biral waa naa na comme lay si bala nañ ko ju dëkk na ko biral xam nañ ëkkati wala da koo jënd ci mbatteef ndax bari na bakkan yoo xam ne bëgguñu lu ko dee baax kon it boo koy jaay njaay muraba an na nga ko biral ba wilaate ak jur gi su fekkee day jëleer bi jur ci yow na nga ko biral ba baa ndeen donte jaay na ko wala daa ànd doom ja maaxa ànd ak moom na nga ko biral mu ne wa jëf tamit ak dog nañet ubret moo xam ne góoral na ko garab gi boo koy jaay njaay muraba a fekk nañ la ba nga ba ñu góoral ko na nga ko biral bu sootin nga tàmm loo xam ne mat na te gàtt ba ci waxtu njaay wa boo koy jaay njaay muraba an na nga ko biral waaye kaal ci mustari ak xàcc ak aji jëndam maanaam tey tey masalan njaay danga de dangaa jëndoon jëf ci fukk ak juróom danga de kala ko kala ko jaayoon ci fukk ak juróom da nga koo jaayoon ci fukk ak juróom jëndaat ko ci fukk ak juróom ya nga xam ne moom nga ko jaaye woon waaja da nga de kooku it na nga ko biral ni ko ah dama koo xàccee maanaam dama koo jaayoon nit jëndaat ko ci moom ilaa bi caat nga ne xàccee ci ndolloon su fekkee tey da nga ko koo jaayoon ci fukk ak ñaar jëndaat ko ci fukk ak juróom kooku moom xàccee ci ndolloon ku la jërul biral jaay mu bees la aw naq si wala xàccee ci wàññi ni ki tey da nga koo jaayoon ci fukk ak juróom jëndaat ko ci fukk ak ñaar kooku moom itam da nga de mane waru koo bi ak warga jërul biral walub si war dooga manut as dana ko biral walub si ak war dooga wa taw si si ak cëral ga dana ko biral wala mu kat kan doon tudd poola boo déggee taw si cëral ga mooy bu fekkee tey dangaa jëndoon ay gàtt yu bari ramaas ko booy jaay benn njaay muraabaha na nga ko biral loolu mooy wala mu tax kan ilaa min salamin ndara mu tukkee ci salam su fekkee ci salam la woon nag xam ne da nga ko dangaa joxe woon raftu maal ñu andil la ci ay gàtt kooku boo cay jaay benn njaay muraabaha kooku jërul taw si waaye laa xale rek ñu waxuma xale yi taax xale yi taax moom warul biral ga ni ki tey dangaa jëndoon am taax xalla wucca maanaam di ko luyee boo ko jaay jaay murabba luyaas ba jëru wax ka takk li di fidaa yi naka mot li jënd ga dégg nga de maanaam da nga ko nirale maanaam ci war a biral gi ka takk li di fidaa yi naka mot li jënd ga tey da ngaa jëndoon genn wàll gi bu yàgg gerte ba mujj nga jëndaat la ci def boo ko jaay jaay murabba na nga ko biral waaye laa in warisa laa du dàqu biral gi kat in warisa leen doon na baadu woon leen maanaam tey genn wàllu kër gi da nga koo doon genn wàll gi ci def nga jënd ko boo ko jaay jaay murabba na nga ko biral de ki nga koy jaay nga ne genn wàll gi dama ko doon genn wàll gi ma jënd mu ne waa jaam yàlla intaxat dama ba ba nga déggee barabu waru biral bi xanaa intaxat dama njël jiitu na al ursu dono ba aw wala moom kay war na biral ga mutlaqan moo xam dono baa jiitu wala dañ koo jiitu xam nga bu dono bi jiitoo fooy jënd la ca def da nga koy yokk njënd aw wala mutlaqan war na biral ga moo xam dono baa jiitu wala njënd maa jiitu yëpp na ko biral taawi laa ne am na ñaar jënd bayin xalit ndeen juum na aji jaay njaay muraba bi naq sin ci wàññi ko su dëkk dëggaleef ko radda mu delloo dégg nga de njëgg ñu delloo ko ci laam ci kanam tuuti nga xam tey da ngay jaay yëf yi njaay muraba ne waa ji téeméer laa ko jënde ba waa ji fay la ba noppi ndeke yow da ngaa juum téeméer ak ñaar fukk kon mën ngaa delloo njëgg ñu delloo ci te wa ndem waa ji dëgg loolu aw asbata wala mu sax ciy seede ne da ngaa juum radda mu delloo njëgg da nga ci kanam tuuti bu ko defee ñu delloo ko moom itam ci laata loolu ngay wax boo defee sëriñ bi nee na ah ah mu- wala mu radda delloo mu sëriñ si laa ko dégg nga de jàpp ñu ko nga ne aw dafa wala mu jëñ maal xam sa bayana bir na bari ko ak solom bu la neexee radda ji nga delloo ko ci mustari rek bu fekkee ñëw na ne la jóom naa radda delloo mustari si laa ko jàpp ñu tam aw dafa wala mu jëñ maal xam sa bayana bir na bari ko ak solom fa in faatan deel faat na si laa ko waa ji ñëw ne la ah damaa jóom de li ma la ko jaaye woon matul njëgg xëy na tànn loof mustari ak jëndam bay na sayi diggante njëggu wér ga warite ak solom waximat yi ak xëy may tiraat yow ma bayi bi ci jaay dañ ko naan léegi njëg gi nga mustari yi joxe woon ak xayma xilaati moom la ñu tànnaloo mustari yi mu joxe maanaam tam ko ci teg wàññi kuul xayma ja an xalatu wala juum ga waritoo ak sonam kon nag su boobaa ñu yem te juum ga ak sonam ñu tënk lakkali tey waa ji dafa jënd xilaati fanweer dem jaay ko waa ji ci ñaar fukk mooy seet dégg nga de dellu si waat ni ko damaa juum njëg gi fanweer la woon ñu ne ah comme xilaati faat na day si loxoy mustari yi nañ seet xayma ja ñu seet xayma ja muy fukk mooy yaay ji ah ñu ne kon nag nan ngeen ci juum wax dëgg yàlla juum gi ñaar fukk la waaye nag comme moo gën a bari xëy na ji nan ngeen ci juum yem foofu wayn kasaba ndeem senn aji jaay njaayu muraaba la ci ma war na ndëkk lu ñu jënd la almustari aji jënd ja in attuma ndem sikkir na ko fen wa waritoo ak tono waa ji dafa fen ni la ñaar fukk laa ko jënde nga tegal ko si tono ba pare ndeke yow fukk ak juróom la ko jënde su dikkee nga wax ko mu sikki fen wa léegi war na nga jënd sa netoo bañ yow mustari bi xilaata sikki loolu naa njax su fekkee tey li mu lay jaay dala ñu woon lu piire la nekk war nga wu amul koot nga ca dañ koo rax bu sippee jar bu sippee jargalam ca dolli it bu la neexee bay léegi nag bu in faatan leen faat na ci laata nga xam ne tey waa ji da koo jar waaye faat na ci loxom faat na ci sa loxo yow mu sëri ba noppi kon fa xam sama ne war na te gën jaay néew ca njëg ga wala xëy na ci ak xëy na ji ci kanam dafa xasal dégg nga da ngay seet njëg ga ak xëy na ji lu ci gën a néew fekk ci sa njar ga kon daf koo jar jaay la ko nga seet ko gën a mu faat say loxo ba noppi ñu door leen daf koo jar nga seet njëg ga ak xëy na ji lu ci gën a néew bu ko defee wabil kas bi mi ci senn nag xëy na la ñuy tànneef bay na sayi diggante njëg gu wér ga wariti ak tonam aw xayma caa wala xayma ja maalam aussi fekk ëppul xayma ja alal kas bi ca senn wariti ak tonam waaye su fekkee xayma ja kat daf ëpp senn wa ak tonam comme ñeent xayma ji tënk yàqalu tey waa ji dafa jënd si laa ci fukk dikki ne la ñaar fukk laa ko jënde mooy kees yaa mooy fukk la ko la la ko la la ni moom la ko jënde dikk dikki ne ñaar nga jënd ko si ñaar fukk ndeket day day sell waaye bi mu paatee ci sa loxo ñu ne lay xayma ja ñu ne fanweer dégg nga fekk yaa ngi ko jëndee ñaar fukk ci moom ñu seet lay xayma ci laasa muy fanweer mooy laam bi kon nag ñu ne waay waay nañ yem ca seen ndax comme tey ni ñaar fukk la te xayma ci laa ci fanweer la ñu yem ca seen wari fii ak tulam mais ni wa mu dali si muraba ci aji nëbb ay ngaay muraba te xëy daa mi ngi mel ne ku nëbb ay tëjur ngaay muraba faslun li aji fasal ji waxam morom ma la tanaa wala yóbbaale na albinaaw tabax ak arda suuf sama fax boo jaayee nit tabax suuf sama fax moo ko moomaale wax dafa xadam nga fajaru garab bi dina yóbbaale al arda suuf sama fax maanaam boo jaayee nit garab suuf sama sax garab ga yóbbaale na ko wat naa wala yóbbaale na suuf xuma tabax ak garab boo jaayee nit suuf tabax bu ca nekk ak garab bu ca nekk suuf sa yóbbaale na ko wal basra ak jiwu yëpp suuf dana ko yóbbaale ci kanam tuuti dafa xadam waaye laa sarfa waxuma mbay mbay moom boo ma jaayee suuf mbay ma nekk ca kaw moom yóbbaale wu ko walaa mat solo ngi jooju luñ ko suul soo jaayee nit suuf lépp lu mu ca fekk ca biir ñu suul ko kooku loola it suuf sa du ko yóbbaale kamaa law jixi la ndaxe doonte réeree foon na ko maanaam lañ fa tool buñ ko réeree it dégg nga de xamuñu ko ko moom it ba tey suuf sa du ko yóbbaale nga ne walaa sa jëf jéggi ne garab bu yóbbaale samara meññet almabal tu ma di mu ñu góoral su fekkee garab bi bi nga koy jaay dafa am meññet mu ñu góoral yow mi koy jaay yaa moom meññet mi ilaa di sàcc nga ci sàcc kanam tuuti bu tukkee ci mustari bu fekkee mustari dara ne ah léegi nag meññet mi góoral nañ ko waaye maa koy moom kon su boobaa dana ko yóbbaale awak saroo wala la ñu góoral la gën a bari kooku mën na itam du ko yóbbaale ilaa di sàcc nga ci sàcc bu tukkee ci mustari su fekkee mustari dafa sàcc ni ah léegi nag moom meññet mi maa koy moom kon nag su boobaa ñu jëfandikoo sart boobee sëriñ bi nee na mu ne wamaalin te mun akali ci mej waa ji fasu maanaam meññet moo xam ne dafa ñëw leen du tàbbi dara ci sart dégg nga de laa ka mun akali ci meññet ma jaaji fasu boo ko jaayee du tàbbawaale ca njaay man dara ci sart wamaali abdin alali jaam du bokk ca njaay man dara boo da ka ko jënd dafa sart ni jaam ak alalam lay jënd waaye bu ne alal ji yow mi ko jaay yaa koy moom waxin fati fasin ak kuutaayal ngub soo jaayee nit maanaam am ñax mu mu war a xuuf bu ñax ma jebbee du ñëw jëlaat nga rek sàtt bu ko sàttee nag su boobaa bu jebbee mën naa ñëw gubaat waaye ubbi na leen góoril na nit fu genn wàll ga tey masalan da ngay jaay garab bi fekk góoral nga genn wàllu gi fa li kuli ñeel na képp hukk moo atteem su ko defee nag kenn ku nekk la nga garab gi boo ko jaayee te genn wàll gi góoral nga ko bu meññee yaa moom genn wàll yaa moom genn wàll gi nga góoral genn wàll gi nit ki ko jënd ko moom wali ki lay ximaa ñeel na képp ci ñoom ñaar nag sax ñu nandal maa loo xam ni lam yadul du lor bi laaxiri ca morom ma su fekkee ne tey damaa jënd garab bi ci yow léegi te naan nga góoral nga genn wàll gi man bu may roose dinaa roose loo xam ni du lor na ñett ñi yow itam booy roose na nga roose loo xam ni du yàq genn wàllu garab gi nga ne ma daaru kër dina yóbbaale saabit lu ci sax te baa dina ko bunt bu mën a jaayee kër gi lépp lu ci sax yóbbaale na ko buntu baa ngi ci biir wala seen ak sateer mooy lu demee ni ci taabal war a xan ak war a xan ak gën man ñee ci gëdi gi ñu tabax bi foo xaani ca kaw ga maanaam bu njëkk mag ñi dañ daan tabax kër tabaxaale ca loo xam ne dañ cay wane ay peppal yu demee noonu ca kaw kooku maanaam bu boobaa dana ko yóbbaale masalan daal mu xaw a niroog puus wasu la min kerkeraan maanaam moo di braas boo jaayee kër dana ko yóbbaale su mere boo xam ne dronkeef na ko bu fi xëy ni ci boo xam ne di bu ñu dronk ni ci wér weddi maanaam raas boo xam ne dañ ko ci wéer ak weddi ndax dana ko yóbbaale ku jaay kër dana ko yóbbaale ñàkk gaa yóbbaale nga ne xam naa ne am na ñaari wax wal xam di jaam dana yóbbaale saaba mën a ci malaani coonaam ku jaay jaam malaan yamuy liggéeyee kooku kat moom jaam ba dana ko yóbbaale wala jaam yàlla yow fii def na ko matal moom bàyyi ko di sàtti àddina ak ñàkk sa sàtt ñàkk gaa yóbbaale bàyyi ko dana dana lay jaay jaam waaye nag du yóbbaale malaani coonoom ndax loolu def na ko ko matal boo moom wax jooju la sol moo gën a feeñ ci indi yi mu jëlee ko ci wute ba aw laa wala moom kay gisu ko ko matal dégg nga de su boobaa kon sàtt ba day yàqu njaay ma wér ah nga nit tëradul am nañ ci deng deng ca kayit wala ca mujj kayit wala ca kanam wasu yi tamit def na wax jooju ngay xaddam ca kanam tëradul am nañ ci deng deng ca wasu yi nga koy yóbbu mu di leen leen ci maanaam ndax gis na ko nangul sàtt ba wala sàtt ba day yàqu njaay ma wér ka mustaritin naka ko di aj bàyyi mu di aju sax sakaatama asakay meññet moo xam ni lan njëkk teeyu dégg nga de maanaam mustari mustari ngay wax maanaam ka mus- ka ba ka mustari nit ki mustari mu di aju sax sakaatama asakay meññet moo xam ne lan teeyu xam nga booy jënd meññet te teeyu ah ci bàyyi ko yow mi ko jënd te teeyagul bu ñoree ci say loxo yow mustari yi yaa ko war a asakaal nga sàtt nag ñu bàyyi ko yow yaa koy jëndee asaka déedéet kon sàtt boobu day yàqu njaay ba wépp ba tax da nga naan ka mustari ne ka mustari mu di aju sax sakaatama asakay meññet moo xam ne la ñu teeyu mu sàtt ko waral bàyyi ko sàtt ba day yàqu ak njaay ma wér wala wa an laa udata wala da nga def bàyyi umu sàtt ni moom itam kenn du udawu jaam bi da nga jaam jaam ci kenn du ko udawu sàtt ba day yàq njaay ma wér wala mu waad jégeen tërlonte nekk da nga day masalan da ngay jaay jaam aw laa mu waad xatu wala jét tërlonte ngay wax wala ngay jaay jaam ne kenn du ko tërlonte da nga naan sàtt ba day yàqu dañuy wacc sàtt ba njaay ma wér aw laa jaay ata wala déet jëya da nga naan meñet ni ma lay jaay kenn du ko sippi jëya yow bàyyi hu yaa ko sàtt sàtt ba day yàqu njaay ma wér awi nam yaati wala leen dikkewul mu sëri bi samane ci njëgga li ci sàcc bi sàngam pla bay a njaay amu fi kon it ba tey sàtt bu yàqu la njaay ma day wér ndax njëkk moom boo ko xasee dig rek du tax mën a ko la yàq njaay xaw ma wala mu sàtt loo xam ne laa xar da déet benn xemem teef fii di ca nekk wala maa lit u jéegéeni dollik alal su boobaa ba tey sàtt ba day yàqu njaay ma wér ni ngi koo xam ne dangaa sàtt ni jaamu ñu laa jaamu yéefar laa bëgg di ko fekk mu di julit wala nga ne jaamu ñu laa bëgg di ko fekk mu mën a jàng sàtt jaamu yéefar amul benn njëriñ kon su boobu jaam ba day jullit doo delloo njaay ma day wér sàtt ba yàqu wasu yi jàngo sara dudu mu ne wasaha wér na bay sama leen jaay meññet wala yi ak li koy niru ba daa loo xam ne feeñ na salaawo yéwén bi ah meññet moo xam ne feeñ na yéwén mooy meññet mu ñu xaw a mën a lekk bu dee tàndarma ak yu demee ne ci moom dinañ def ci njëm su turluwul nag maanaam bu meññet mën na bu ca xob ya ba kenn gisu ko wa dagan na jaay meññet xam na koo jëkk seen yéwén maa as yi ànd ak cosaan la mooy dattu garab ga bu fekkee meññet ñu feeñagul yéwén mën nga koo jaay booleeg dattu garab gi yëpp aw lekk wala yéegaleef dégg nga de maanaam meññet la dégg nga de aw ulëkka wala yéegaleef meññet la di ca dàtt ba nga xam ne tey dangaa jëkkoon a jaay dàttu garab bi ba noppi daal di ca yéegal meññet la wér na aw alaxat yi wala mu jaay ko ci appa dog léegi léegi maanaam meññet moo xam ne feeñul yéwén dagan na jaay ci sàtt ne waa ji da koy dog léegi waaye ci sàtt suñu ànd ak ñaari sàtt meññet mu feeñagul yéwén nga jaay ko ci sàtt dog i nafaan leen jëriñ la nga xam ne day jëriñ mustari ki koy jënd moom bu ko jëndee dana ko jëriñoo dégg nga de waltara temu loru lu hoo ñeel ko muy ñaar ñett ñetteel ba wala mu yotamaala te kompaloo wul waar yow mu àll yi ci jaay ma ñett dëkk seen yéen ñett sàpp yooyu la cay am mu door a dagan jaay ma ñett dëkk seen yéen ñetti tey man ñett nii daal moom ci bi muy ñàkk a ñor feeñagul yéen ci lay jëriñoo ci koy jënd mel ne da koy da koy suube wala da koy jëriñoo ci leneen su boobaa kon dagan la jaay ko waaye la ala taf kaytun xuma appa desal de jaay ma ñett mu feeñagul yéen ni da nga ko fay wacc ba mu ñor daganu ay itlaaxi wala boyal wala jënd noonu rek baax daganu man wa budi hoo feeñagul yéen fi bari ayatin ci lenn blak kaasin aji doy na ci jëm ci ca xeet la maanaam bu ñu nee làkk bii na ñett mi dagan na bu feeñee yéwén dagan na jaay bu feeñee yéwén ca lenn la rek maanaam bu fi amee garab yoo xam ne ñor nañ rek mën nga sukkandu jaay làkk ba yëpp sàtt nag ilam tu bakken dem du rawante waaye la bët ñun bu mu rawante lool la ne bii day ñor ba rek yenn yi door a ñor ah kon nag su boobaa du mën a nekk waaye la bët ñun waxuma biir saanin bi ñaareel daganul jaay di awaleen ci bu njëkk bi tey garab gi day meññ ñaari biir nga bëgg a jënd benn biir bu njëkk bi ne ko naa fay bu ñaareel bi loolu dañ koy tere déedéet da ngay xaar ba mu ñor nga ni ndax biiru ñaareel xama bu ñëwee nu muy mel nga ni waxu wa moom nag ah seen ñëwén buñ ko waxee ak sufu mooy xonq maanaam wa suuru al mooy wëcc wa suuru alaawati ak seen neex sufu mooy wëcc mooy xonq ak seen neex su meññet moo xam ni dafa mel ne tàndarma ak lu koy nit maanaam daal heure boo xamee ni tàmbali na neex nga xam ne boo ci lekkee dégg nga maanaam mu neex kon su boobaa loola du dagan na ci ci tàndarma mu ni wataayu ak waaj mooy préparé wu li nit di ci ñor dégg nga de maanaam bu fekkee ne lu mel ne ci xaal la mooy loo xam ne day préparé di nga maanaam di ñor wa nga ni seen njëriñ ci fii nawi ci borom tóortóor binti taay nekk na ci ubbeeku ga te mooy lu demee ne ci waseen ak yu demee noonu bu ubbi ko rek maanaam seen njëriñ wal ba kool yi nga ni seen njëriñ ci lu ñu boroomi reen bii saami nekk na ca lekk ga maanaam buñ ko mënee lekk ni ci pulóox ak pataas ak pombiteer mu ni waa jaam yàlla oo moom seen njëriñ fil batiki ci xaal ndax israar mooy jalga aw taayu mooy préparé ga mooy waaj li tabatiki ci jallaxu xaw laa ne am na ci ñaari wax nga ni woo koy njëriñ den wala muslim ñoo aji jënd bu tooñi ko yaasamina biir lu demee ne ci yaasamina boo jëndee lu demee ne ci yaasamina biir yëpp yaa ko moom ndax moom day bari ay biir dégg nga te biir yi du maanaam day maasaloo rek di di wàññeeku di continuer yaay moom lépp ba maxtaatin ak lawteef ni ki dara boo jëndoon tey toolu dara xam nga day mel ni nga watt mu meññaat nga wett mu meññaat yaa moom biir yëpp nga ne walaa yo joosu sëriñ bi nee na daganul jënd boroomi biir di ko seedañ ci luy toll ci weer maanaam loo xam ne day am ay biir yu ñor di wutante nga jënd ko ci jamono bi toll ci weer ne ko feeg weer lu mu mel ni ma jël daganul déedéet waaja ba war na daal te lépp loo xam ne ay biir lay am boo ko jënd darbul ajali sadd ab dig maanaam da ngay sadd dig boo xam ne diggante ba da nga de comme biir yi di jeqi ko nit tamaran deen saxana meññet na kal maw si ni ci banaana xam nga banaana day meññ di wuutaw rek da nga koy sadd dig ni ko jënd naa ko ñetti weer wala ñaari weer ak genn wàll wala yu dem noonu nga ni wama daa wéet na bay abin jaay pepp après que woo xam ne sendi na xam ne yëpp ciy jëkk woon di xat bii ci nëbam maanaam daal yëpp xat woo xam ne maanaam da nga koo jaay te booba sendi na waaye wowagul bu ko bu ko kan ko jaay nga dee ñu bàyyi mu wéy fekk nag la ñu gënaloon mooy nga bàyyi ba mu wow waaye comme sendi na rek te waa ji nam na ko ba dem ñu bàyyi dina wéy wax boobu yem foofu mu dikk ci yorle yorle benn xeetu njaay la woon boo xam ne dañ ko yolamal ci ki ko def mu jënd ko meññet mu nekk ci biirub làkkam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag dafa fekkoon ci madina ay tooli tàndarma am fa ñoo xam ne dañ daan fekk miskin yi moo xam ne dañ koo yërëm ñu ne ko may naa la ñaari meññeeti tàndarma ci sama biirub làkk te boobaa nag soo bañee miskin ma dem sa biir làkk di yër say tàndarma ak di xam sa tool nu mu mel da ngay waxaale ak moom meññetum ñaari garab ya ni ko loo ma ko mën a jaayee mu ne la mën naa la koo jaay ci nangami dabi ussu ñetti daf wala ñeent nga ne ko kon toogal bis bu ma wattee tool bi jox la ñetti daf loolu mooy benn tafsir ci tafsiru yor ya tafsir boobu nag la imam Malik jàpp te mooy tafsiru Abdullah ibn Umar waaye bu dee ci sahiles hadis bi rek la hadis Bukhari ak Muslim dañoo wax ni na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an bayti samari ala ruusi sajari dégg nga de bi tamrin jënd tàndarma ju wow na rasulullahi sallallahu an bayti samari bi tamari ila annahu ruqisa lil araya yàlla mën nañ ko ci koo xam ne da ngaa yorle foofu la hadis ba yem wala lu koy nuru su ko defee nag tafsiru imaamu Malik mooy noonu moo wax am na tafsiru jumhur boo xam ne Sayd ibn Sabit ak imaamu Shafi ak jumhur noonu lañ ko firee ñoom ñooñu miskin ni dafa am ci tàndarmay daawam tàndarma ju bari jëkki ba tàndarmay ren ji ñor mu soxla ku ko jaay ci tàndarmay ren ji te amul njëg dagan na mu natt tàndarmay daawam jooju lu manqué juróomi dabi usux jox boroomu làkk borom làkk ba jox ko meññetum ñaari tàndarma wala ñetti tàndarma wala la mu ko jox daal mu dem watt ko ca tooy tooy ba ndax booba tàndarma ji tooy ji day lu ñuy bëgg te ci amul njëg naka ci tàndarmay daawam jënd ci di tooy bi loolu mooy kon jaay na meññet mu wow jënd meññet mu tooy loolu mooy tafsir imaamu Saafi yi ak Sayyid ibn Sadik ak jumhur ci abi waaye tafsir bi ma jëkk a wax mooy tafsir imam Malik des na beneen tafsir boo xam ne mooy tafsiru Sufyaan ibn Husayn mooy ñetteelu tafsir ba ci ci ci yorle moom dafa ni miskin ni ci boppam moo am ak tàndarmaam mënta nekk mu ñor mu dem fekk ku am tàndarmay daawam mu ne ko jox ma ci sa tàndarmay daaw ji nangam sa jël sama meññetum tàndarma gële yow bu yoree nga dem wàcc ko loolu mooy tafsir bi gën a néew doole ci tafsir yi ñaari tafsir yi mooy tafsiru imaamu Malik ak Abdullah ibn Umar tafsir bi jëkk mooy imaamu Shafi ak Sayd ibn Sabit ak Jumhur tafsir ñetteel mooy tafsiru Sufyan ibn Husayn kon ñu dem sëriñ bi nee na wala yàlla ma def li lim xulul ñeel aji yor la istiraawu samaratin jënd meññeet ca kanam dafa xadam tey ba su moo xam ne dana wow yàlla mën lañ ko jënd ko aw xaay min wala aji taxaw maqaamoo taxawaayam ni ki waa ji dee na yorle woon na ay tàndarma ci toolam ka ko doon mën naa istiraaw ci amati jënd meññet tey ba su moo xam ne dina woo wa in bisraay wa in donte dafa taxaw taxawaayam bisraay samari ci jënd meññet la da nga de donte daf waa ji dafa taxaw taxawaayam ni ki tey waa ji yor na ne ci toolam ay tàndarma ba noppi nga ñëw jënd meññet la faqat wala dàq garab ya kon it yow moomu yola mën lañ ci yow istiraaw samari ci nga jënd meññet ma mu yorle woon tey ba su moo xam ne dina woo ka law seen ni ki law yoon may na la nga jënd ko waaye laaka moo si ko mool demee ne ci banaana bu fekkee day lu demee ne ci banaana moom nga xam ne du luy wow kooku bokku ca ak lu demee ne ci liñ naan rumaan ak xoox ak tufaa ak inab ak bala yooyu nga xam ne duñu duñu dañuy tooy xit yoon mayewul nga jënd ko dégg nga de juróom-ñaari sàpp la sàpp jënd ba am bu njëkk ba in la ko sandeem baatal na bir ar yëpp si baatu yor la sàpp ñaareel ba ba daa ci seen salaa hoo yéla ngeenam sàpp ñetteel ba wakkaana te mu jënd nag jënd ja dëkkar caa ci naka leen sàpp ñeenteel ba war na wuy aat na ko jënd ci xeet wa buy tàndarma nga yor le na nga ko jënde tàndarma waaye bu ko jënde leneen sàpp juróomeel ba yoo fii dana ko matal indi gisaa ci sa dog sàpp juróom waaye bu dégg nga de sàpp juróom ñaareel ba ko fi simati na ko lekk ci baat maanaam nay loo xam ne yow ki la jaay na ñettum tàndarma ji nga ko yorle woon dala koy topp bis boo daggee say tàndarma jox ko lu lam lam la ko jaay mu ne waxam ko aw tasin sàpp juróom ñaareel ba mooy ne juróomi dari usuf sàq la wala ñu ko gën ñëw waaye bu ko ëppee dootu dagan nga jënd ko lu may ci xaalis walaay joosu dagan ak saay ñu jàpp lu ëpp ala yi ci juróomi dari usuf maahoo ànd ak juróomi dari usuf ya boo xasee ba jënd juróomi dari usuf daganu ci ngay jëndaat leneen bi ay nit ci kay alal la say ci wax dëgg soo xasee ba jënd juróomi dari usuf rek la ca def même yoon mayetu la nga di ko jëndaat ilaa li man da rek koo xam ne ara yor le na ara yaa ay yor le si waaye ci làkk sa dagan na mu jënd mu ngi ko lumti cëpp xam sa juróomi dari usuf bu dee da ngaa yor le sa làkk bële ak ca bële ak ca bële benn bu ne mën nga caa jël juróomi de in kaana dem nekk na yor le ga di alfasin ci baat nga xam ne benn bu ne da nga ne yor le naa ci na sinne waaye laa daa di la sino xuma benn baat bu dee da nga leen a yor le làkk yooyu yëpp ci benn baat kon su boobaa dootoo ko mën alal ji jox dëgg ma la nga si union suñu ko ci wuti ba la ko def it mooy sàpp juróom ñetteel ba li def ci dara ngir jañ lor bañ miskin may dugg sa làkk nga xam say tàndarma awlil maaruf wala ngir yiw nga xam ne da nga ko yor le borom dara jote bu góomuy sonn fay sari mu jënd ba da a lenn la su boobaa na nga jënd lenn la dégg nga de lenn meññet na loolu lañ ci jublu sunu borom sëriñ bi nee na mu ne ko kulli ay nit ki bépp làkk noonu itam yoon may na la nga jënd ci dañu ko bay dagan nag jaayam alas la cosaan la dégg nga de bi jënd loo ca yor la dañu ko bay ak dagan na jaayam alas la cosaan la maanaam nañ li nga yor la dàpp garab ji moom yoon may na la nga jaay ko wa jaasa dagan na làkk ñeel la mu mu wax masalam yor la yam foofu mu duggaat ci leneen mu ne wa jaasa dagan na làkk ñeel la yow borom làkk bi si laawu as yéen jënd cosaan si haay ko ci nekk la ci sab làkk bi kat fii ci nattaleem in xat ngeen jublu nga maroo ko yow fakkat wala jënd la tey bu fekkoon ne benn waaye dafa am ak tàndarma ci sa biir tool yoon may na la nga jënd ma ñetti tàndarma ga comme moo ko moom ci nattaleem bis boobu dajee say tàndarma fay ko waaye nag na nga si jublu aw yiw rek ngir bañ ko sonal waaye bu ci jublu jënd lor moom kooku bu dee jënd lor nag du dagal ñu ne ma batala yàqu na yor le ga in maata ngeen benn aji yor le ga xam na aw si jëkk làkk ga mu ne waa dégg de su fekkee da ngaa yor le na ñetti di ko waaji daa tan làkk nga faatu yàqu sëñ bi nee na waxal jaam yàlla al huwa moom làkk xaw sulu sooli mooy làkk cosaan nga dégg nga de te mooy yow bi nga yor leen na ñett ni dégg nga de mooy waaja day ñëw ba gis garab ya aw wala moom kay añet loolu mooy mu tënk sama roxaan meññet ni maanaam bu meññet ma xasee tënk rek dégg nga de maanaam yor la ga wér na taal daañu am na ñaar jantal su dee làkk cosaan nga mooy garab ya xam na leen jëkk muy meññ su dee meññet ma day fenk day fekk meññet ma tàmbali ñor mu ne ma sa kàttan asa kay meññet mu ngi yor la alal muur yi war na aji yor la ji ci kanam tuuti wa sax yoa nandal ga alal muur yi war na aji yor la ja wa comme ret mat lees na ko dégg nga de maanaam su fekkee ni dafa manqué ni saab ñu mat li ko sa la ca def dégg nga de sëriñ bi maanaam li nga yor ne bu matul ni saab nga mat li ko def ci làkk bi bi xilaatin waaxi di loolu naag aji mayee soo mayee meññet moom asa kaja dégg nga de kooka waru la loolu ngay wax sëriñ bi nee na jëkk teey nag waaye na fekk nga maye ko jëkk teey sëriñ bi nee na watoo doo def na sippi wax boobu yam foofu mu ne watoo doo def na sippi jaayatu simaari jëyee na ñett maanaam na ñett mi daal bu fekkee dañ ko dafa kii da nga koo jaay ni ca boppi garab ya mu am jëye da nga ko sippi sippi mooy nga wàññil ko sa njëgg lu toll na la ca jëyee ja tabba kan maw si ni ci banaana wala maqaa si ak law si mooy beres ak xaal ak lu demee ne ki naajo ak yooyu in bi ak sàpp sàpp bi dëkk mooy in bi dem jaayat na ko jëf ci àppa dox way nen arrêté donte si yor ne wanam donte tey masalan yaa ko yor ne woon ci dëkk waaye laa mari lu xuma cal meññet moo xam ne da nga koo joxe can gi si ko sippi jaye ba nga déggee nag ma ne watoo doo dina sippi jaayee ci simaari jaayee meññet ñu ne bala xam ngeen jot na sulu sal màcc sulu su lakk ba maanaam la ca jëyee ja def buñ neen mat na juróom-ñeenti dab la jëyee ja yàq ñetti dab ya wala ko say aani doon demee gendarmerie say aani yi la wa bër nii ak gendarmerie bër nii def na ko sippi jëyee bu sa jëyee tabbee wa bokk yet la dese nekk fa ci sàpp yàlla bokk la yeen téye ngeen a bàyyi tëru ci baa ceega wa ofri te wéetu lépp ko ci sàpp yàlla bokk nañ la jaay ma ñett yu bokk la datti garab aw la xee aw ul xiqa wala yéegaleef datt ba dégg nga de waaye la wala aw lekk wala yéegale asla datt ba ca meññet ba dañ laa jëkkoon a jaay meññet ba noppi yéegal ca datt ba kon it des na ko sippi bu fekkee meññet ma am na jëye waaye laa soo ma safaan ba bu dee datt ba ñu la jëkk a jaay doon caa yéegal meññet ma kenn du ko sippi aw maaxoo wala ñu jaay leen ñu ànd ñoom ñaar di ko sippi mais ni woon si la def na seet maa lépp loo xam ne musiba maanaam musiba def na ko minal bu tuuni ca biir ya ilaa maa jëm ci nga xam ne bàkkee def na ci samani jamonoom waaye laa yem la bay desi ko xalam bi si njaay ba soo ja soo jaayee meññet muy ay biir waa ji dé walaay sa jul tudde ko sàkkoo gaane waa ji watt biir bu njëkk bi mu mat yàlla dogal mu watt biiru ñu xaar biiru ñaareel mu watt ko mu manqué musiba tàbbi ci biiru ñetteel ba ñëw musiba ma gën a bari kon ñu seet ñu ci tey ñu tënk lakk yi waa ji da nga koo jaay ma ñett ni mu watt biir bu njëkk bi muy fanweeri def ñu ne loolu de baax na biiru ñaareel ñëw musiba ma tàbbi ci muy ñaar ci def muy seet biiru ñetteel ba ñëw jëye ja gën a bari muy fukki dab kon nag comme biir bu njëkk fanweer la woon biiru ñaareel ak biiru ñetteel bu nekk am na jëye léegi kon fukk bu biiru ñaareel manqué na fukki dab biiru ñetteel manqué na ñaar fukki dab kon ñu dellu ca nisis ba nga ca desoon na na ko jox sa njëg nisis àlla say ci wax ja gën a wér sëriñ bi nee na wote monsieur tamit meññeen udaa ji ba ci taade udaa ji topp li daari ñeel kër dangaa luye ak kër ak tàndarma nekk sa goy meññ nga sàkk ne tàndarma ji nag damay lekk ci meññet ni yàlla dogal jëye tàbbi ca tàndarma ja ndax kon meññet moo ne jëye tàbbi des na ko sippi ak ñàkk gaa sippi taawi daani am nañ ci ñaari jëntal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min surriyatina ummatan muslimatan laka wa arik day daw nga ñëw waa ji nëbb la li muy daw lépp li ki jaam bi day daw fukki fan ak juróom mu ni la dana daw fukki fan ak juróom te fekk jaam bi ñaar fukki fan lay daw Hmm, kon nag foofu am na lu ñu si war a wax mu ni waa jaam yàlla ndax yu faraku def na teqale bay na ak sëriñ ayib bi diggante ba mu ko bërilee gën jaa bari ayib te mooy mu ne ko jaam bi fukki fan ak juróom lay daw jaam bi daw ñaar fukki fan kon fayal jëw dana dellu bi saay di ca ndolante la rek juróomi fan yi nga xam ni moom la waaji nëbboon rek loolu ngay dellu ci ca ca njëkk waa xal yi su ko biralee gën jaa néew nëbb ko gën jaa bari ni ki dana ni jaam bi day daw juróomi fan jaam ba daw ñaar fukki fan kon dana dellu bil jami ca mbooleem njëgg lépp aw bi saay di wala moom kay dana dellu ca ndolante la mut la xam moo xam birale ko gën jaa bari nëbb ko gën jaa néew wala birale ko gën jaa néew nëbb ko gën jaa bari aw wala moom kay dem na ci fasale bay na alaaj yi diggante deewug jaam ba fii maa ca la nga xam ne bayanoo biral na ko aw laa wala moom kay de aw laa wala moom kay al bu alkuwul ca la mu ko nëbboon kon su boobaa aw laa wala moom kay jaam ba def na ci fasale diggante jaam ba alku na fii maa ca la nga xam ne bayanoo biral na ko aw laa wala moom kay alkuwul ca la mu ko biraloon ca la mu ko nëbboon la alku su fekkee daf la mu ko la mu ko biraloon la jaam ba dee du la jox dara ay di xadim dong la lay jox su fekkee lam la nëbboon ca la jaam ba dee nga del si mu jox la sa mbooleem de axawal am na ci ñetti wax nga ne waru da delloof na ba dul mabbi lenn lu ñu jaay bi isati ci ciram lenn lu ñu jaay bi isati tey damaa am sama fas woy jar juróom fukk nga am juróomi xar nu jëndante ci ma jox la ko si nga jox ma juróomi xar yi ñaari xar yi am ayib waru ji addalof na bi xayma ci xayma ja dañ naan ñaari xar yi am ayib lu mu war a jar ñu ni ñaar fukk bu boobaa bu ñaari ma tëye ñetti xar ya dina topp xëy may ñaari xar ya in kaan dem nekk na sama njëg si la tam bi si la mu ngoog ngeen xam ne njëg gi dama laa joxoon sama fas nga jox ma juróomi xar ilaa ñëpp kon dane boo nekk na la ayib lakk sara dina gën a bari su fekkee nag li ayib dafa gën a bari ñi ki ñetti xar ya moo am ayib kon nag du dagan may tëye ñetti xar ya am may tëye ñaari xar ya di topp xëy may ñetti xar ya am ayib déedéet kooku dana ko waxaat lu ko niru ci kanam tuuti aw ahadumus da way jëne wala kenn ci ñaari way tollantu am ayib ni ki tey da ngaa jënd ñaari ñaari dàll bu wenn wa amee ayib déedéet soo ñëw téye wenn wa di topp wa ca def déedéet da ngay d'accord da ngay téye ñoom ñaar ñëpp wala nga delloo ñëpp rek aw uman wala ndey wa wala daa ak doomam maanaam da ngaa jënd ndey ak doom dégg nga de mu am ayib kon nag ñoom ñaar ñëpp ngay boole téye dégg nga de waaye doo téye kenn ka di topp ka ca def déedéet walaay joosu daganul tamasu ku jàpp bi àqala ci gën jaa néew ustiqa joo xam ne yeyees na ak soroo gën jaa bari mu ngi noonu su fekkee tey ji ñetti xar ya moom dañoo ye ñett ya juróomi xar laa laa joxoon sama fas nga jot ñee ñett ya daganul ma téye ñaari xar yi di topp xëy may ñett ya déedéet wax boobu yem foofu mu ne wa in kaana den nekk na bu la neexee nga ni de fekkees na bil amaani ñaari dërëm noonu lañ ko daan firee wasil atun ak sila tusaa wi too xam ne dina yemoog asaratan fukk waa ji dafa yor ñaari dërëm ak sila su tolloog fukk mu jënde ko bisaw bin ci malaan maanaam yor naw bëyam mu tolloog dégg nga day fukk mu teg ca ñaar dërëm muy fukk ak ñaar mu ñëw jox la nga jox ko malaan fas suyikat yeyef silatu silasa béy wam la joxoon ñu yey ko wa faata faat soo bu malaan ma dégg nga de léegi malaan mi faat ci sa loxo fa loxoo ñeel na ko bu fekkee malaan ma nga ko joxoon faat na ndax moom moo la joxoon béy wi ak ñaar dërëm malaan ma nga ko joxoon faat fa loxoo ñeel na ko xiimatu soo bi xaymee malaanam yow ci kamaal yi ànd ak matam comme béy yum la joxoon faat na léegi sa xay maye malaan la lay delloo bi kamaal yi ànd ak matam wara du dërëm may ni ànd ak delloo ñaari dërëm yi waaye yëkkatil ñaar dërëm moom delloo ko dégg nga de mu delloo la sa xay maye malaan wa dagan na raddu ahadil mustariyayni ni delloo kenn ci ñaari way jënd maanaam ñaari bokk jënd dara kenn ka gis ci wàllam ayib su ko neexee dem delloo ji wàllam nga ni wa dagan na delloo ala ahadil bàyyi ci kenn ci ñaari way jaay maanaam tey soo jëndoon ci bitiga bi fekk muy ñaar ñu ne ci bitig bi nga gis te la nga jënd ayib boo demee kenn ko fa fekk te ñaari way jaay ña bu la neexee delloo ko ko nga ne woon xaw lu wax ja nag lil bàyyi ñal na aji jaay ja fil ayib ci weddi ayib tey da ngaa jaay waa ji silaati mu dem dikk ne la amoon na ayib nga ni ko amu ko woon yow mi ni ko amul yow la ñuy dëggal aw xidami wala jiituk ayib daf ne ni ayib ji yàgg na ci nga ni ko da ciy door a foofu fekk jënd na ko barki démb ba demoon ak moom dikk ne la amoon na nga ni ko amu ko woon yow la ñuy dëggal ilaa bi taati aada dana ci seeday aada lil mustari ñal aji jënd ja bu fekkee nag tey jii ah maanaam aada seede na ne ah waa jii kat dégg nga de mustari yi kat wax dëgg yàlla silaat yi ayib ji ci nekk ayib ji yàgg la war a doon kon nag def na ko dëggal ni ko yow wax nga dëgg ayib ji yàgg la kon nag yow bàyyi ko tey ah yaa yaa koy yaa koy fay yaa koy yaa koy jàng maanaam ndax tey aada nee na ayib ji yàgg la ngay wax ala fa giñat na man koo xam ne lam yoqutoo dogooful bi sut koy cig dëggoom moo xam bàyyi wala wala mustari yi buñu nee bàyyi ayib ji yàgg na wala mustari yi ñu ne ko ayib ji yow la amee kuñ ci wóoluwul des na la giñ doo nga diñ loolu rek mooy wax bi nga ne waxu bi la nangu wax na xayru udoolin seede yoo xam ne duñu way maanu ci kanam tuuti li ta asuri ngir gàntaluk seede yu maanu tey bu ñu nee mbaam mi day lawbe rek ko xam dégg nga de bu lawbe yu maanu wulu woon it ñoom lañ koy laaj wayen mu tëdike ne donte ay yéefar la maanaam yéefar sax bu fekkee lëf li moom rek moo ko fi xam moom lañ koy laaj nga ne waye miin hoo ngiñal bàyyi ko dégg nga de ah bu ñu ca bañ ci dàq ayib da nga naan biitu oo jaay naa ko ko wa maa huwa te déet moom ayib ci kanam dafa xadam bii muy nekk ci silaati battan ci lu dog ci saayirin ci saayirin dem ayib ju feeñ la waala ilmi ak dàq xam fil kat yi ci ayib dina loolu la bàyyi yu giñ su ñu nee bàyyi li nga jaayoon am na ayib buy giñ day giñ ne wallaahi maa ngi giñ ci lu dog ni amul ayib ju feeñ dégg nga de ah ju ju ma xam tey bu dee ayib dina booy xaw ma loolu lay wax nga ni wa ngi ñal bàyyi ko te si tawfiit ci boroomu matlu ni ki waa ji dala ni li nga ma jaayoon ni bërigo la manqué na da nga giñ ni wallaahi ili si laay laay aloo jaay naa ko ko wa ak ba tóote nga bal naa ko te wa maa huwa déet moom ak manque bii mu ci nekk battan ci lu dog ci saayir ci saayir walaante ilmi ak dàq xam fil xafi ci lu nëpp loolu ngay nga ne woon xalatu xalay lu ñu jaay njaay mu yàqu loxoo ñel na mustari lil fasti ba bañu fii tey bu fekkee waa ji jaay na la dara njaay mi yàqu na maanaam am na ayib wala leneen su boobaa xala joo ca am yaa koy moom masalan su nga jaayeen jaam bi nga liggéeyloo ko mu di la bayal ba nawet bi jeex nga gis ci ayib it li mu doon bay ci nawet bi duñ ko limaale loola moom yaa ko moom yow aji jënd ci walam tura da deesul delloo xàlla de bi xilaaf wala jëndoon naag doom tey boo jëndoon jébéer bi wala fas bi mu am doom boo ci gisee ayib boo koy delloo delloo waale doom ja wa samaritin ak meññet dégg nga de tey uduret moo xam ne góoraleef na ko maanaam meññet mu ñu góoral dangaa jënd toolu garab fekk ñu góoral meññet ni bi nga ko jëndee ba pare nga gis ci ayib booy delloo meññet ni meññet ñoomu nga xam ne moom la meññoon da nga ko delloo waale wa sootin ak ngëndal dangaa jënd gàtt bi ci waa ji fekk mi nga am ngëndal nga wef ngëndal li jaay tàmm loo xam ne mat na ca gàtt ba boo gisee ci gàtt bi ayib boo koy delloo da nga delloo waale ngëndal li yooyu moom da nga leen delloo waaye nag mu dule na réer ci ñàkk delloo xàllaj ka suuf atin ni ki ndap soo jëndoon ab xaaju tool ci benn waay kam bokkaale loon tool ba ñëw dap waaye garab ya meññ ne ba nga watti meññet ma ba denc ko meññet ma moom yaa ko moom doo ko delloo was jaaxin ak yey ni ki tey dangaa jënd toolu garab mu meññ ci say loxo nga watti meññet ma jaay benn waay ñëw yey tool ba ci say loxo dégg nga de meññet ma nga wattoon jaay yaa ko moom doo ko delloo wa tablisin ak falas ni ki tey waa ji dafa jënd ab tool yàlla dogal ba tool ba meññ mu wattu meññet ma ba jaay ko ñu di ko falas bu ñëwee garab ya rek la ñuy jël waaye meññet ma wattoon ba jaay ko du ko du ko joxe wa fasadin ak yàqu njaay mu yàqu yàlla dogal nga jënd tool bi ci njaay mu yàqu mu meññ nga wattu meññet mi jaay ñu di ko firi su tee meññet ma nga làq yaa ko moom daxalat dégg nga de wa daxalat tabet na si laa suñu delloo fi si damaa ne bàyyi ci warlu bàyyiwu in radien dem nangu ne bil xabi ca nëbb su ma nee si laa si am na ayib nga ne d'accord naa dikkaat nag sag warlu lu ci sikkati yaay ñàkk yow bàyyiwu aw sabata wala sax ayib ja indi aakin leen fa aakin ñu ne ko diw kat la nga ko jaayoon am na ayib aakim seede ko su boobaa lu ca sikkati bàyyiwu mooy ñàkk way ndem yox comme donte aakim atiwuloon bii ci delloo siem nga ne walam yoro da deful delloo njaay ma yox su meen dem tu def na ko bismi ci turam xaamam nekki benn waaye dalaa jaay dara tudde ko tur ba nga xam ne moom la ko ñëpp xamee dégg nga de mooy turu am nekki dana ne kaay ma jaay law doj dégg nga de ah nga jënd ko mu mu jaay la ko ci doj nga dem toog ko fekk doj wa di wurus kon nag sa nekku la ñëw ne la da nga ma koy delloo déedéet ndax turu am la wala du xam ne di jégee ni naxeel naxeel di ko delloo nekki da ngaa ñëw fekk looy jaar fukk waa ji jaay la ko fanweer nga dem ñun la dalaa nax kon it doo delloo waraw xaala ko donte wuute woon na moom naxeel ga al aadata aada nga xam ne wax dëgg yàlla liñ la naxee ëpp na kon it du tax nga delloo mu ne waa jam yàlla ba nga déggee naxeel du waral delloo xanaa ilaan yastaliman dare boo wamatu ne moom aji jënd ja wayux biróoma solo ko bi jali ci gëréeréem boo demee fu ñu xamul marchandise ma foo xam ne xamoo marchandise ma nga ni leen ah man kat xaw ma dara damaa bëgg rek nga jaay ma lu jaadu mu jaay la lu ëpp kon kay su boobaa sañ ngaa delloo ah yastamino wala mu wóolu ko ne ko man doy doy nga ma lépp loo wax noonu la ah kon kay da nga delloo tërëdun am nañ ci déng-déng nga ne waru da delloof na fi wu def na delloo maanaam njaay ma jaam bu ñu jaay def na ko delloo fi udati salaatin ci uday ñetti fan maanaam bi kulli addin ci bépp ayib bu sos ilaan ya dendale boo jaay na ko bi baraat ci dencal waaw jaam daal bu ñu koy udawoo ñetti fan ayib bu sosu rek nga daal di delloo nga de boo da nga koo jaay bi baraatin ci dencalu ne xaw ma ci ayib dina boog ju feeñ kon nag bu ko waa ji jëndee bu ca gisee ayib bi du dellu ci wa daxalat waaw nit daal bu lay jaay jaam ni la da- dañ koy naa ni xaw ma ci ayib dina boog ju feeñ te yàgg na fi man nga ne ko dëggal naa la boo ca gisee ayib doo dellu ci de ndax yàlla woo nga ne wa daxalat tabet na dégg nga de moom uday ñetti fan fii ci daay ci laablu bu ñuy udaw jàmbi ñetti fan laablu gi dana ci yóbbaale dégg nga de maanaam laablu laablu rek ci ëmb naag ëmbul dana yóbbaale uday ñetti fan wa nafaqatu dund dégg nga de dund lu ñuy jaay alay maanaam jaam bu ñuy jaay di ko udaw ñetti fan dund ba alayhi war na bàyyi bàyyoo koy dund ah ca diiru udaw wala hoo ñeel na bàyyi al artu xayu xaañ bu ñu ko fa xaañee it lépp lu ñu ko fa jox loola bàyyoo koy moom xel ma dégg nga de waaye ilal mustasni xaddamal ci kanam tuuti naka mustari mu daal di seetee maalo alali jàmba su fekkee dañ faa xaañ jàmba ca diiru udaw ga fekk mustari ni man damay jënd jaam ak alalam lu ñu fa jox jàmba kon mustari koy moom xel ma hoo bi ni ki jaam bu ñu mayee lahoo ñeel ko xel ma hoo bi naka lu ñu fa may lahoo ñeel jàmba ngay wax maanaam lu ñu fa may jàmba it ci diiru uuda bi loola bàyyoo koy moom ilal mustasna nga de mustari mu settee maalu alali jàmb kon mustari koy moom nga ne wa nga ne wa fi da nga de nga ne wa wa fi uddati wa def na delloo jaam fi uddati sanat ci uday at bi gisaamin ci ngaana maanaam ah, su fekkee tey jaam bi dañ koy udaw at ngaana feeñ ñu delloo wa barasin ak baras bu ca feeñee ñu delloo ko wa junoonin ak ndox bi tëb in ci jikko dana waral delloo aw ma si jinin wala laalu jinne nekk da nga ko doon udawu jinne laal ko fa kon it dana waral delloo waaye laa bi ko dërbët nga ko mën a benn sa din dong nag du waral delloo su fekkee ni tey maanaam dina da koo sadd benn yoon ket du waral delloo ah in surita nem sat def na ñaari udo yëpp nag da nga déggee ñu ni uday ñetti fan ak uday at yëpp def na dana dana waral delloo mooy nañ ko sax ca ba ñuy jënd jàmm dalaa danaa ko udawu de ak seet ayib yu mag yi wala udawu ñetti fan seet ayib yu ndaw yi awuti daa wala baaxu leen ñoom ñaar buñ ko fa baaxoo it ba tey ñu def ko wali mu sëriñ ñeel na aji jënd jàmm iskaatu iskaatu maarato ñaari uda yëpp bu la neexee nga ni jàmm bi may jënd du ma ko udaw uday ñetti fan du ma ko udaw uday at nga ne wala mu tamalu ayib ju di aji jàmtalu dégg nga de ba ak sofu ba dahuma gannaaw uday ñetti fan ak uday at min hu musiba mustaree de bépp ayib boo xam ne dafa jàmtalu ne dafa sofu gannaaw ba uday at jamatee wala uday ñetti fan ja loolu mustari day ñàkk maanaam dañ ko naan natt bu ñëw ci yow la rek ndax jàmm bi comme uday at jamat na mu door a gis ayib ñu ne ayib ji sosu la wala uday ñetti fan jamat na ñu door a gis ayib ju ndaw ju sosu kon nag musiba mustaree mu andi nag jaam yi nga xam ne deesu leen udaw laa fi mun kenn waxuma jaam bu ñu denc jaamu kenn deesu ko udaw bii ci moom amu xaalis jaam bu ñu denc mooy jaam boo joxe can kenn du ko udaw amu xaalis wala jaam bu ñu sumi ko deesu ko udaw dégg nga de nekk sa jabar dafa ñëw sumi ko yow ab jaam jaam boobu kenn du ko udaw moo xam uday at wala uday ñetti xam aw mu saalin wala jaam bu ñu leen looki daan andi jàmm tey waaye dafa rey nit rey tey di ki leen loogu moom ab jaam ay bokkam jaam boobu kenn du ko udaw aw muslimin wala jaam bu ñu salamle fii di ko topp jaam boo xam ne da ngaa salamle woon di ko topp bu ñu ko indee kenn du ko udaw aw bii wala muslimun bii mooy jaam bi nga joxe woon restaurant kenn du ko udaw aw xardin wala leb jaam boo xam ne dégg nga de masalan da nga koo leb dégg nga de war a fay beneen kooku deesu ko udaw dégg nga de sëriñ bi nee na aw ala sifatin wala jaam bu ñu jënd ci app melal nga xam ne da nga koo jëndoon ci app mel nga xam ne borom dem la koy jaay nekku fi boo ko jëndee doo ko udaw aw mu kaatab la jaam bu ñu dogoo bii ci mu kaatab mu kaatab mu kaatab mu jotoo bay bëgg a jeexal bidiw ya dikk dogoog yow ab jaam jaam boobu kenn du ko udaw ama din wala jaam bu ñu jaay alaaka mu fal waral ku ñu falas jaam boo xam ne dañ koo jaay waral ku ñu falas kenn du ko udaw amu stan wala jaam bu ñu jënd lépp seen ngeen ngoreel kenn du ko udaw aw maa ko seen wala jaam bu ñu jàpp ay dañ leen ci bor de su ko udaw aw ru aw rudda wala delloo si ko bee bi saabu ayib da ngaa jaayan ab jaam benn waaye mu gis ci ayib delloo si ko du ñëw nga naan ko dama koy udaw aw wurisa wala donee ko jaam boo xam ne dañ koo donn dégg nga de suñu ko jaayee kenn du ko udaw aw wuxi ba wala mayeef ko dégg nga de jaam boo xam ne dégg nga de maanaam dañ ko maye kenn du ko udaw alistra wala jënd ko sow jaay jëkkëram tey sa jabari jaam dañ koo jënd doo ko udaw aw moosan wala jaam bu ñu dénkaane bi bayi ci jaay min say din ci seet da nga ne sama jaam bi bu ma dee lañ ko jaay seet suñ ko jaayee seet seet moomu du ko udaw ami man wala ci koo xam ne a ba sopp na ko jaam dañ ko jaay ko ko sopp kooku it kenn du ko udaw alistra wala ci jëndam lépp kenn ngeen ngoreel jaam boo xam ne dañ koo jënd ngeen ngoreel kenn du ko udaw aw mu kaatab wala mu kaatab jaam bu ñu jotoo bii ci moom tey jaam boo xam ne mu kaatab daf koo jotoo bokkul ak bu ñu dogoo ba nag bu ñu dogoo mooy bu jeexal bi diwuñ jotoo ba bu ñu bii nag moom da koo jotoo kenn du ko udaw aw mat dina wala jaam bu ñu jaay faati nañ jaay mu yàqu dégg ko udaw wasa xataaratu na ñaari uda yëpp nag dégg nga de muy uday at ak uday ñetti fan bi koy tam ci lu demee ne ci goreel fii ma ca ñaari ca ñaari uday diiru ñetti fan bi muy uday ñetti fan bi buñ ci gorelee jaam bi uda jorot na uday at bi buñ ci gorelee jaam bi uda jorot na sëriñ bi nee na wa damina war loot la bàyyixul aji jaay makkiran la ñuy natt li xam bi ba mu koy ba ba ko mustari di natt maanaam daal soo jaay la ñuy natt fekk ki koy jënd nga bëgg ko yaa ko warlu bi kay dañ ci natt mu nga ko ci natt kamoo soo ne ni ko li ñuy peese bàyyi oo koy warlu bañ koy peese ba ma dudin ak lu ñu wañu bàyyi ko arlu bu ko jëkk yool ba nag ale si war na bàyyi maanaam tey booy jaay nit dara ni ki da nga koy peesal pees ni yow yaay fay borom bascule bi koy jënd bi koy peese waaye bi xilaaf i xaalatu loolu na xàccee xàccee moom su fekkee ni mooy te nit ki dafa jëndoon pepp ci nit ki dellu si yow mi ko jëndaat yow mi ko ko jaayoon nga di ko jëndaat loolu mooy xàccee naam waa ji jaay nga ko bëri ko pepp yow nga soxlawaat ko jëndaat ko ci moom te yow yaay mustari yow mi koy jëndaat waaye fakal xar ni ki leb la ca kanam tuuti dafa xaddam kon yow yow moomu nga xam ne yaay sàkku xàcceel bi nga xam ne yaa koy jëndaat yow yaay fay borom bascule bi wa tawliyati ak méngale kon fakal xar ni ki leb la ni ki tey da ngaa jënd si laa dem méngale ko keneen lu ñuy peese kon nag su boobaa ka ko kon ko méngale mooy fay ko sarikati ak bokkaale fakal xar ni ki leb la ni ki tey da ngaa jënd bëri ko pepp wala ceeb benn waaye neen lañ ko bokkaale nga ni ko ay ci ngeen war koo xaaj fakal xar ni ki leb la moom moom i sàkku bokkaale mooy fay borom bascule ba alal jëy ci wax dëgg na la nga fa indi yoonu su ma jële ko ci wute ba nga ne was tamala sax na war lu bàyyihu bi mu yaar yi ci nattukaay ba maanaam bàyyihu même bu ñu tegee la ñuy natt ca fañ koy nattee wala fañ koy peesee moo ko warlu ba tey ci warloom la nekk bu fa sànkoo mooy ñàkk wala tawallaahu donte mi nga woon a natt ga mu sëri aji jënd ja maanaam daal tey bu fekkee da ngay jënd soow mi même bi nga nattee koo coow fi yow téye di natt teewul ki nga xam ne mooy jaay soow mi moo moom soow mi même bu dëpp woon it mooy ñàkk nga ne wax abdul akaar nga bu akaar bi texleeti nekk na ci wéetal ga su fekkee nit ki da nga ko jaay kër boo ko wubbilee néegee jox ko rek jox ngëm na ko waxee yi ngëbu li dul akaar bi xur si nekk na ci baax dañ daan wax ne bu dee mbaama boo ko joxee laab ja ngëm na bu dee fasa boo ko joxee dégg nga maanaam buum gëm ko yeewee dégg nga de maanaam ngëm na ko wa du mu ne war na na mustari bi raqli ca fastas ba maanaam njaay mu wér daal fu ñu ko fase rek mustari moo warlu silaas yàlla ma xa boo sa sindara silaas ñu téye li saman ngir dikk njëgg tey dama laa jaay ñu ni pas-pas bi wér na ma ne la waaye nag bala ma la koo jox da ngay dem andi jëgg kon parce que def ni ni ki tayle la te kon def na ci fasal lu ñu mën a fàddoon ak lu ñu mën ta fàddul dégg nga de ci kanam tuuti wala saadi ak nga dégg nga de siraas ñu téye ngir dikke seede nga xam ne tey da nga ma koo jaay mën la demal andi ku seede ni jaay nga ma ko kooku dégg nga de nga di ko wuti kon parce que def ni ni ki tayle la def na ci fasal lu ñu mën a fàddul ak lu ñu mën ta fàddul wa ilal xaay ba ak nga lu fàddu maanaam tey boo may jaay silaasu fi nekkul fàddu fa bàyyi koo koy warlu bil xab bi ba ca ngëb ga kooku yow mi nga xam ne yaa koy jaay yaa koy warlu fekk nga bëgg fekk mustari nga bëgg ko ba ilal muwaadata ak leneen jëbel bu ñuy jaay ci tërlante fa bàyyi xoo koy warlu bi ko róo ji ba ca génn mi nan ay def cëmb rek ma fekk génn cëmb rek ma nga xam ne mooy wane ni amul bàyyi xooy warlu mu ne wala wa ila simaar ak ngara meññat moom itam boo ko jëndee ci bott garab ya bàyyi xoo koy warlu jaayati ba muy mucc ci jëya lu neew bu dee jëkkeef na al mustari ak jënd jëri silaasi yi ko xëccoo dangaa waxaale waa ji ba ngeen juboo mun la mun nga ne ko andil njëg gi mun la jox ma silaasi kon nag la mustari mi jënd lañ naan joxeel njëg nga ne watala ko sànku lu ñuy jaay waxtu damaanal bàyyi ci waxtu warlu bàyyi bi sama win ci ndawlu yàlla ñu soxla la ñuy firi njaay ma maanaam heure bi nga xamee ne bàyyi oo ko warlu su fekkee silaa sa sànku na kon nag ñu firi njaay ma mu yem foofu ba koy retaan lof na mustari aji jënd in xaya ba ndeem bàyyi dafa fàdd silaa sa woote ni sànku na tey da ngaa waxaale waa ji ba juboo ñëw di ko fay mu ne silaa sa kat sànku na te fekk da ko denc kooku def na la tànn loo bu ko bu la neexee mu jox la sa xayma waaw waaw su ko su la neexee it nga firi rek nag yow daal yow la ñuy tànn loo yow mustari su ko defee sëriñ bi nee na aw ayiba wala ayibaleef ko su fekkee silaa si dafa ayib ci waxtu woowu nga xam ne ci dégg nga de wa farlu dañuy tànnloo ba tey muskër yi su ko neexee mu jël silaasa ànd ak ayib janoola su ko neexee it mu bàyyi ay siqa wala yef saa yun xaaj bu siiw ah xaaj bu siiw mooy dégg nga de maanaam tey dangaa jënd ci waa ji pet ni ba nga peesee saako bi ba noppi ñu daal di yey suluk bi kooku dañ lay tànnloo bu la neexee nga jënd li ci def bu la neexee nga bàyyi wayen xaala donte ne woon na lu ñu yey la donte la ñuy la dégg nga de nit ki dañ caa yey tuuti dañ lay tànnloo nit ki fukkeel ba aju demee noonu nga ne wa tàll fu ba di sànku lenn lu ñuy jaay ka xay bin ni ki ayib la ca kanam tuuti ngay xaddam bii jël nekk na ci moom maanaam tey da waa ji da ngeen a waxaale pet ni dégg nga de ba pare ba mu jaay la ko ba noppi lenn ba lenn si pet ma sànku dégg nga de masalan daal moo xam dafa tuuru wala dafa yàqu kon kay bi ni ki ay bii joo xam ne nekk na ci bu ñu ay bijee nekk def na seet la ca def su fekkee mat na nisif dégg nga de wala lu ko gën a bari war na nga jàpp lu day nga jël ko te mu jël lu day la la yàqu ca njëg delloo la aw saaq yi wala yeeyam ni ki tey waa ji dangaa jënd ci moom bëri go pepp ba mu ko peesee ba noppi ñu yey ñeent fukki kilo ya mu def juróom benn parce que ay bi ka ay bi ni ki ayib la biir boo xam ne nekk na ca te kon ba tey bu fekkee li ñu li ci des mat na ëpp na kenn wàll te mooy juróom benn fukki kilo yooyu ma tudd ba tey tamit ba tey yow itam danañ la tànnaloo bu la neexee dégg nga de ngay juróom benn fukki kilo yooyu mu delloo la la yàqu ci njëkk nga ni waxal ma araam nag tamas ku jàpp bi yàqale ci gën jaa néew loo xam ne dañoo yey gën jaa bari su fekkee tey masalan li ñu yey maanaam pet ni li nga jëndoon daal bu fekkoon ni bërigo la yey nañu juróom-ñaar kilo yi mu def fanweeri kilo ah kooku nag doo mën a téye fanweeri kilo yi topp la ci def mi si yéen rek ko di kem rek lu ñuy natt nag mooy pepp moom bu dee loolu dagal na nga téye fanweeri kilo yi ca def dégg nga seet na mu toll ci njëg ah nga fay ko te ñu delloo la ca def waaye bu doon leneen la nekk aw ay jàpp la wala mu demee nekk ay yeneen yoo xam ne daal du misli yu kooku bu njeyee la gën a bari du dagal ngay jël la gën a ngay jël la gën a néew di topp xëy may la gën a bari loolu nañ ko wax ci kanam tuuti wala kalaama dit wax li waa ji di ñeel aji daj ci xalilin ci lu néew aji daj alit ci xalilin ci lu néew loo xam ne laayal fat ko denc di walif ko misaalam ka kaa in ni ki tooy tooyu pak dangaa jënd ab juug di ko nat ba àgg ca saako mu am ak tooy tooy xam nga ab jug mënta ñàkk tooy tooy looy nag doo mën ni li ayib la gi war a delloo déedéet kooku moom amoo ci wax wax boobu yem foofu me ne wayen way neen fàkkandeem nekk na di lu mën a dañ walif ko maanaam la nga ca fekk ci ayib war na caa mën a ñàkk faril bàyyi ñal na aji jaay ja istisamaru fii wàllu rubux ba di sa fii ci cëram kepp masalan da ngaa jënd tay jóg bi natt ko ba nga xamee ni jël nga bu dee ñeenti xaaj ñett yëpp baax na benn dong moo ci yàqu kooku nag bàyyi ko sañ na laa warlul ni la sañ na laa warlul loo ni la loolu ci wér te dara sikku ci moom ngay fay danga fay lu ñu toll ci njëg gi robo bi yàqu bàyyi ko jëlaat ko bu ko defee delloo la toll noonu ci njëg maanaam daal boo ko jëndee woon ci téeméer juróom-ñaar fukki kilo yeeg juróom baax ñaar fukki kilo yaag juróom yàqu bàyyi ko sañ naa delloo jël ñaar fukki kilo juróom ya yàqu te ne la nag fokk juróom-ñaar fukki kilo yeeg juróom yooyu moom da nga ko fay ci njëg nga seet nu mu toll nga génnee ko bu dee téeméer nga ko jëndee woon nga jox ko juróom-ñaar fukki dërëm ak juróom ndax juróom-ñaar fukki kilo ak juróom dégg nga de kilo dërëm la waaye laak sa waxuma lu gën a bari robo bu fekkee la ca yàqu ëpp na robo bàyyi ko ni ku la forcé su la neexee nga jël la ca mucc bàyyi la yàqu bu la neexee nga bàyyi lépp mu ne wala sali mustari dé di ñeel mustari it saamuhoo war lu bàyyihu bi isati ci cërub lu yàqu la mutlaqan moo xam robo la wala lu ëpp robo wala lu ko gën a néew yow miy jënd moom dañoo fokk bu fekkee ni li nga peese ci jóob bi la ca baax am na lu ca bon dañoo forcé dégg nga de bàyyihu ni ko da nga jël lu bon li fokk te man lu baax li ma jël ko yow amoo ci droit loolu mu bàyyihu moo ci am droit waaye yow sañoo ko maanaam daal lu ca mën a yàqu it bàyyihu mën na kaa jël ni la jëlal lu baax li waaye yow sañoo ni bàyyihu fokk da nga jël lu bon li te seet li ci baax nga jox ma ko ci njëg gi kooku moom sañoo ko yow wax boobu yam foofu nga ni waru jo def na delloo lil xëyma ñeel xëyma ja waaye laa gis nit bi ñu dellu ci tudd ga tey bu fekkoon ni dama laa jaay sama fas xool naa masala mu niroog moomu fii la mott di ko dama laa jaay sama dama laa jaay sama fas e nga jox ma juróomi xar ma jox la fas bi léegi nag yàlla dogal xar yi de mucc ayib dañuy seet xayma ja waaye duñu seet tudd ga dañu ne xar fukk rek de dan naan daal bu fekkee ni ñu tënk lakkul ñetti xar yi ayib na tolloog fanweer dégg nga de bu dee kon léegi wa saa wér na njaay ma wala sakkataa doon noppal nañu ñoom ñaar waaye laay sa taaw leen sàtt nañu rujoo ak dellu dégg nga de laxaa ñeel tudd ga buñ sàttee ni léegi bu mel ne xar ayibee ma del ma del si nga jox ma fukk bu yaari xar ayibee ma del si nga jox ma ñaar fukk bu yetti xar ayibee ma del si nga jox ma fanweer dagalul ndax xar yi duñ tolloo xëy ma mën naa am xar mi jar fukk mi jar juróom-ñett mi jar juróom-ñaar mi jar ñeent kon nag li ñuy teel mooy yu ayib daal xëy ma ja la ñuy seet foofu lañ tënk lakkul su fekkee tey ñetti xar yi ayib seen xayma fanweer la ñaar yi nga xam ne moo ayibul seen xayma ñaar fukk la kon nag bu dee ñetti xumus yi ñetti xumus yëpp ayib nga xam ne kon mooy ñetti xar yi kon su boobaa mën na maa téye lépp ànd ak ayib ja wala ma delloo lépp waaye du dagan may jël ñaari xar ya gën a néew di topp xayma yi la gën a bari loolu mooy wax bi waaye su fekkee ñaari xar yi dong ayib nag nga xam ne ñetti xar yi moom dara si ku ci kon mooy ñetti xumusi njëg ga moom wér na waaye ñaar ya moom moo yàqu su ma neexee ma téye ñaar ñetti xar ya dina topp xayma ñaari xar ya loolu sañ naa ko sëriñ bi nee na wa itlaatul mustari sànku sànku aji jënd xabdun ak nab la maanaam jamono bi nga xamee ni mustari mi ngi waxaale ba noppi dégg nga de daal di dem dikk sànq ci laasa dañ ko naan ñëpp nga ko dégg nga de fekk ma ngi ci waxtu ci waxtu warloom nee na wal ba nee na wal bàyyi sànq bàyyihu yooju bu lay warale alxurma ak fay ci kanam tuuti dafa xadam bàyyihu moom bu sànqee ci laasi ci waxtu bi nga xamee ni mi ngi ko warlu ñu ne ko demal fay ko nee na wal aj na bii sànq jaamu waxaale ngeen bu juboo beneen jaamu ñëw sànq ci laasi yooju bu lay warale alxurma fay ñu ne ko demal indi ci laasu mel ne soosu masalan jaay nga ma xar mi ba nu juboo ba eggal benn waaye jóge fa la rek jam ko paaka paaka xar mi sedd dee ñu ne ko fayal yooju bu xar ma ne dem jënd xar mu day noonu dikk fay wa kasaalika naka noonu itlaafuhu neel sànq dégg nga de mustari moom itam yooju bu xar ma ah mustari yi moom itam bu fekkee dafa sànq si laaj dina waral ma fay nga ne wayen alaka ndem alak na bàyyi woon aji jaay subratan jóor bu ñu jaay alaka li càpp càpp nag fan mis lu war na kemba taareen ci nattale tey da nga maa jaay jóor bi boo xam ne dañ ko war nag kilo bu nekk nangam nga dem bool bëtiku alak jóor ba maanaam nga sànq ko demal indi jóor bu day noonu teg li yow fii ngir na matal ko mustari yi comme waxaale woon nañ ba juboo ni kilo bu nekk fanweer kon nag soo noppee boo sànkee jóor ba demal indi jóor bu mel noona ma tàmbali laat kilo bu ne ma fay la la ma waxoon wala xiyaara di tànn nag lakka ñel la yow mustari ci firi njaay ma ak jàpp soo xamee ni ci duñ la tànnaloo maanaam bu bàyyi indee beneen jóor rek da nga jënd mu ne aw aña bin wala jàmbur moo sànq jóor maanaam da koo alal soo xiimatu ni ñu ko indil xayma ja ngeen joxi na ndéem dee def na jóor bi maanaam tey danoo waxaale jóor bi ba juboo war a def kilo bu nekk nangam benn jàmbur sànq ko na indi xayma ja in jël ndéem dee def na almakilo natt jóor bi ni ki ab saaku la woon benn jàmbur sànq ko na dem biiwaat beneen saaku bu day na moom wala jóg bu day noonu indi su ko defee nag su ma sara topp jënd jooju fal xiimatu na fay xayma ji in jërat makkiritu maanaam bu fekkee réer nañu saako ba mu sànq na fay xayma ji nañ seet saako bi après pare lu mu war a jar ci xaalis ci ko jàmbur bi ko sànq joxe xaalis bi léegi nag yow waxaale woon nga ak bàyyihu ba jubóog moom jóor bi kilo nangam la jàmbur sànq na ko fay na xayma ja xaalis bàyyihu na dem jëndi lu mel noonu dikk teg su mastara topp jënd al bàyyihu aji jaay ja maa loo xam ne yoo fii dana ca matale mustari maanaam bàyyihu daal dem na jëndi lu mel ne pepp ma ngeen waxante woon moo xam pepp la wala ceeb la wala leneen daal di dikk nag fas yéene ngeen la léegi nag waa ji jaambur gi sànq na jóg bi fay na xayma ji bàyyihu dem na jëndiwaat lu mel ne ni ngeen waxaale woon fa in fadala ndeen des na ni ki tey ba mu ko joxee téeméer ni ko demal jënd mu dem jënd ci bëri ko dikk muy saako bu day na ba mu sànkoon mu jënd ko ci juróom ñett fukk mu des ñaar fukk fan desit la bàyyi ñeel aji jaay ji kon bàyyihu dana la matal bërigo bi de ba noppi xaalis bi mu jëse woon defe ñaar fukk wi moo ko moom ndax comme jëndal na jëndaat na lu mat bërigo ci téeméer bi ci juróom-ñetti fukk te waa ji fayoon na ko téeméer moom ñaar fukk yi moo ko moom waaye naq te ne wàññiku na nekk dafa jël téeméer bi dem jënd ci muy juróom-ñetti fukki kilo dong te yéen bërigo ngeen waxaale woon fa kalistiyaax yi ni ci woon ci masalam yey la bu ñee fa kalistiyaax yi ni ci moom masalam yey la mooy su fekkee la ca manqué mi ngi toll ci sulus wala lu ko gën a bari dañuy tànn loo mu sëri bu ko neexee mu firi njaay ma bu ko neexee mu jàpp lu toll noonu mu jàpp lu toll noonu ci njëg la ca def ñu delloo ko ko ndax boobu yomb ñu ne wajaasa dagal na albayhu njaay xadal xaddi jëkk na waaw waaw su boobaa tey li ma bëgg a wax mooy ah dagal na ku jënd dara lu ne ba nga ko daataan ñëpp nga jaayaat ko ñu ne faaw masalan tey boo jëndoon am xar ca dëkk bi waxaale ko ba fay ko su la neexee ba nga ko daataan jëli waaye soxla ko fii nga jaayaat ko fa mu dem jëli ko ilaa mut la ko taamin mu haawadati ndel lu ñu boyle ñamu wattalante ñamu wattalante mooy lan ñëpp ñam woo xam ne da nga koo jënd daga ñu nga di ko jaay jëkk nga loolu xadis da koo tere na rasulullah sa an bay taamin dégg nga de xabla man man istra taaman fala yabihu xabla an yastawfihu hadisu muslim ak buxaari yi la képp ku jënd aw ñam dégg nga de nee na bul ko jaayaat mukk te jëkk ñu la koy peeseel ba mu mat sëkk kon nag moo tax mu ne ilaa mut la taam waat ndax lu ñu boy la ñam wattalante ñu ne ah kon ñam bëpp woo xam ne da nga koo jënd daga ñu nga di ko jaay jëkk nga mu ne wala ko risque xaadin dontul dama nekk wërsëgu xaadi la maanaam wërsëg wi nga xam ne xaadi daf koy jox nit ñi di la wax weer wu dee danaa la jox ci barigo ci dund ba dund boobu sañoo koo jaay dégg nga de sañu koo jaay dëkk jëkk heure bay jot dégg nga de maanaam même xaadi mi nga xam ne day atte ñu koy fay ci béy ci maal ah weer wu dee ñu di ko ca jox ak dund dund boobee ñu koy fay bala koo sañ a jaay day nekk ba weer wa dee ba mu ngëp ko ba noppi kooku sa boo xam ne jàtteef na ko mu ngoog di koy lim ci natt nga xam ne weer wu dee dañuy jox xaali fukki bërigo fukki bërigo yooyu mu yóbbu këram bala mu koo sañ a jaay la dem ba weer wa dee aw ka la ba ni saati wala dama ne ki soowum gàtt ah moo xam ne da nga koo jënd kon daga nun nga di ko jaayaat jëkk nëpp da nga ni gàtt bi jaay ma soow mi ma jaay la ko nga war koo rat féeg rek tëggoo ko ba noppi bu ko jaayaat lam yàq bir boo xam ne nga bu ko mën a fii ci bopp ilaa ko wasiin daral ku ñu dénk ñu ne ah ñam daal daganul jaay jëkk nëpp mu ne ilaa ko wasiin daral ku ñu dénk li yetti ma yi ñeel ñaari jirimam tey boo jëndalee benn jirim ba ñam ah jaay ko ba ca des yoon may na la bu ko ab jaambur soxlaa nga jaayaat ko ko jëkk nëpp maanaam daal sañ ngaa jaay ñamu kenn ci jirim jirim ba boo jëndalee benn jirim ba ñam su la neexee jaay ko morom tam ko daataan ñëpp nga jaayaat ko beneen jàmbur loolu may yoon may na la ko kon nag ñaari pas-pas yi njaaya ngoog yoo xam ne ñëpp dugul te diggante ba waaye dañoo continuer jirim daanaka yow yaay ki yaay ki moom njaay moom njënd moo tax ñu may la loolu ci moom wa jaasa dagan na moo tax ilaaka wa ci nekk ku ñu dénk lee tamit ñaar jirim may nañ ko mu jaay ñam boo xam ne jirim baa ko moom jaay ko benn jirim ba jëkk nëpp wala mu jaay ko jàmbur jëkk nëpp nga ne wa jaasa dagan na gisaagun jaay jóor ci kanam tuuti bi làq ci pas-pas bi dafa xaram maanaam jóor moom dagan na jaay boo ko jëndee ci pas-pas rek mën nga koo jaayaat jëkk nëpp ba ko sadaxatin ak sarax bu ñu saraxee ñoom mën nga koo jaay jëkk nëpp wa bay xumaa dagan na jaay lépp loo xam ne alal mukaatab war na mukaatab min ko moom bidiw baa mukaatab it moom itam dagan na bu fekkee dañ koy laaj ñam muy bidiw nga ni ko weer wu ne nag ma jox barigo bidiw boobu moom mën nga koo jaay jëkk nëpp mu ne waa jàmm yàlla xanaa eh dina dem gaas na ak ko ngoreel ga yé dégg nga de day fekk nag booba ñu gaawe ngorol mukaatab bi waaye bu dul loolu dagan xam moom kay gaawe nañ ngorol ga wala gaawe wuñ ko yëpp taw daa ne am na ñaar jantal ñu ne wa ixraaduhu dagan nag lebleem ñam boobu nga xam ne da nga koo jënd jëkk nëpp bu la neexee mën nga koo lebal nit mu dem jëli ko jaay gi rek la ñuy bañ aw faaw wala mu faye ko ANCAR dañ ci leb su fekkoon da ngaa leb bor jënd aw ñam ca dëkk ba nga bëggoo ko mën nga koo fayee ji bor ba ba béyu foo dagal nag jaayam li mu tëdd jëñal aji leb su fekkee ñam woowu tey da nga koo da nga koo leb da ngaa leb ñam ba nga ko daataan ñëpp dagal na nga dem jaay ko parce que lan leb nga ca dëkk ba bëri gëp ceeb wala bu pepp bu la neexee nga dem jaayi ko dëkk nga kooku moom tëyewuñ la ko waaye kaasu dagal na xaccee min jamee ca mbooleem ñam wa masalan tey su fekkoon da ngaa jënd ci nit bëri ko ceeb su la neexee yoon nee na nga jaayaat ko ko mu jëndaat ko ci njëg gën ko ko jaay woon waaye te xayra doonte soppiku woon na soo ko sayi ka jooyub naf sa doonte nga xam ne la nga ko joxoon muy njëgg soppiku na yoon may na la ko waaye laa badal xooxuma yaram wa yaram wa de moom bu soppikoo misaalam ko sam ni daamel ni si ko sam ni daabati ni ki duufub daaba masalan da nga koo jënde woon am xar da nga koo joxoon am xar mu jaay la bërigëb ceeb wala bërigëb suuna léegi xar ma daa woomoon te duuf na daganut mu di la ko delloo ndax loolu njaay mu bees la waxu saale akuk lapp xar ma suuroon na waaye léegi maanaam maanaam lapp la daganul mu di la ko delloo di jël ceeb ba ndax léegi njaay mu bees la bi xilaati amati loolu naa jëréer jëréer de moom su fekkoon ne moo doon njëgu ñam wa donte lapp wala suur na dagan na mu delloo la ko te jëlaat aw ñamam ndax jëbeer moom kenn jubluwu ca yàpp wa luñ ca jublu mooy eh, eh, eh, jëriñoo rek nit amul sa eh, yàppam amul benn njëriñ Mhm. nga ni wa mislu mislika aha kon nag jëbeer jubluwuñ ca wamam ak suuram loolu ngay wax aha ndax nit moom luñ ca jublu mooy eh, eh, eh, eh, maanaam eh, njëriñ la rek wa mislu mislika araam na kenn koj sa aha dégg nga de wa mislu mislika araam na kenn koj sa yow mustari nekk tey dangaa jëndoon aw ñam nekk tey dangaa jëndoon bërigo ceeb ci gerte dikk waaja bëgg koo xàccee jëndaat ko ci yow daganul mu di la delloo gerte ga kooku daganul keneen ay nan rekkee su fekkoon da nga ko jënde xaalis de moom fa la woo ñal na ko dafa mis laa jëm kañ keega in kaan dem nekk na keega bi yedd bi ci loxom doon wa in kaan doon nekkoon na keega bi yedd ci loxol aji aji jaay ja tey daal da ngaa ñëw ni ko bërigo bi ma la bi ma jëndoon ci yow wala ceeb ci ñeenti junni ana xaalis ba mun la mi ngi nii kaay jaa- jaayaat ma ko nga ne ko indi mu jox la baax na wante xaalis nga ne xàccee nag bayun meneen njaay la ilaa ti taamen rek xàccee ci ñam dégg nga de wa sufati ak xàccee ci ndab kooku du meneen njaay dégg nga de wa muraabatun ak xàccee ci ak nga rek xàccee ci muraabaha yooyu xàccee moom du meneen njaay njaay mu jëkk ma rek fi ne nga ne wa tawleetun dagan na méngale ah méngale mooy nga jënd silaat ca dëkk ba keneen soxla ko nga ne ko demal fay ko wa sarikatun dagan na bokkaale te mooy nga jënd silaat dan waaye nga ne leen ko bokk xaajoo ko ca digg ba nga ne ko ay ci yéen nam yëkkun dem nekkul nag alaaneel ko rek ci bu mu teewalat an ka walif la waaye bu ne da nga ko naan demal jënd soo demee nga fayaaleel ma te boo dikkee nu door a bokk kon dafa mel ne salafun bi man faatin la da dañ koy tere kon maanaam njaay mu ànd ak leb lay doon maanaam njaay mu ànd ak leb daganul nga ne wastawaate yemoo ak daaw maa seen ñaari pas-pas ne ñoom ñaar kon sartu sarikatu ñaar la in lam yakun an ko an ka bu mu la teewalal maanaam da ngay yëkkati sa genn wàll jox ko ci njëgg mu dem jënd ngeen bokk waaye boo ko ne demal teewalal ma kon njaay ak leb la te it ne